salaamaaleykum sama gars yi maa ngi maa ngi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp salaamaaleykum euh, Abdou Karim Gueye la ngeen gën ko xam ci xarim Karim Xurum Xaq euh, Karim euh, nitu dëgg di leen ziar di leen bëgg bu baax a baax a baax di di di di di yeesalaat sama sama sama sama cofal ci yéen quoi di di bëgg Sénégal yëpp di ñaan yàlla rek bañ a wax ak def lu ñuy xebee comme d'habitude comme ni ngeen ko gisee ah dafa dama dama man dama naka moon Sénégal dama jógee Sénégal direct maa ngi Casamance actuellement instant maa dama ñëw Casamance pour benn village bu tudd Bandial boo xamante ni village bi village bu doy waar la boo xamante ni bon bëri na ay village yu mel noonu Casamance sax mais euh, ñu commencé ko d' abord ci Bandial parce que projet yi nga xam def nañ ko mooy télé ci poste euh, nëbbal li feeñ nëbbal li ñuy euh, feeñal li ñuy nëbb programme la boo xam dañ ko teg moo waraloon ngeen gis compte PayPal yeeg yooyu yëpp pour dem ci jox yi gën a fasante ko ci Sénégal wan leen jafe-jafe yi Sénégal yi di dund pour yéen Sénégal yi yéen seen dim bopp ñun Sénégal yi ñu defaral suñu bopp Sénégal comme Macky Sall c'est un lâche un vaurien une personne boo xam ne tekkiwul dara nit ku bon ba jaaxal ay mbokkam bon déjà man li ma li ma li parce que ñun parce que ñun affaire mom li am solo euh peuple sénégalais bi il faut ñu comprendre ni kat vraiment Sénégal c'est que Sénégal dafa perdre quoi dafa perdre ci angle yëpp le Sénégal perd angle yëpp Sénégal amul ben côté bo xam Sénégal muccu na ci Sénégal perd na ci angle yëpp Macky Sall boy seet président bu gën pon moy mooy Macky Sall nit ku gën a moy Macky Sall nit ku ku respecté wul askanam moy Macky Sall nit ku gën a xeeb moy Macky Sall nit ku soxor rancunier moy Macky Sall ba pare mu bëgg changer histoire du Sénégal quoi histoire du Sénégal le bëgg changer dans l'histoire du Sénégal Sénégal nous sommes am problème ay premier ministre puis, Sénégal dafa un premier ministre quoi dafa am premier ministre quoi dafa un am loolu Macky Sall mu ne changer quoi Macky Sall di changer constitution Sénégal di def lu ko neex Sénégal tudd mujj fenn suñuy frère ay Guy Marius Sagna ay deux personnes ñooy génn quoi Sénégal yëpp croisé les bras di seetaan man dama dama nekk Casamance quoi parce que dama dama dama waxoon dama dige woon ak benn village fii que dama fooroon ñëw tey dama fooroon ñëw tay weekend bi bi ma dama jugee dama dugg Sénégal rek jubali fofu parce que lolu mo taxone ma don lancer compte People pour mën déplacer wu kon ni mako waxé quoi mais li suma fekkon Sénégal mom man xamna ni man mag Guy Marius Sagna duñu taaxali ko quoi mais amna naa lu ma metti trop nak parce que suma fekkon fekkoon du moins Dakar quoi la bëgg wax suma fekkon fekkoon Dakar am lu ma metti trop nak parce que lu tax parce que man mënu ma concevoir sénégal yi di sétane Macky Sall di japp Sénégal di ko foobe te ñaari nit lañ téye ñaari nit lañ téye ci lool deux personnes te li muy laal intérêt Sénégal yépp la mais gars Macky Sall fan la double Sénégalais yi lan mooy seen problème c'est quoi le problème est-ce que comprendre ngeen lan la tax yéen mënu leen jug xam ngeen ko li la foule est folle li population majorité population bi yëpp du ñu comprendre li xew xam lan la parce que Abdoulaye Wade li taxoon ñi ñuy jug 23 juin parce que Abdoulaye Wade arrangé arrangé wu loon télé yi ak rajo yi arrangé wu français yi tubaab bi ñoo def ay propagande def ay jàpp presse presse corrompue yi ñëpp génn ku nekk di sikk Abdoulaye Wade di ko ŋaañ influencer jeunesse bi expliquer les top, leen di wax di wax ba ñëpp révolté wu am sañ-sañu génn quoi tey tay nak Macky Sall tubaab bi lay liggéeyal moo yeen yéen tubaab ngeen di déglu information yi ngeen di déglu baaxul ñi jug ñëpp Guy Marius Sagna ak frère yooyu jug yëpp ñi jug noonu ñoom dañoo comprendre ils savent histoire bi lan la xamnañ lan la quoi xamnañ nan la demee mais sénégalais dañu tok di seetaan ni quoi ñu japp Macky Sall changé japp constitution bi changé japp mais mais Macky Sall mais Macky Sall est-ce que du dëmm sax Macky Sall est-ce que nit la non dañu waxante deug quoi sénégalais yi bëgg tok quoi ni ñep croiser les bras di seetaan quoi comme ça

tapé du Bunny, la làqatu de de Yak Sader. di Sader. sa der il y a lañ Sénégal combien de fois le gars il est toujours là il est toujours présent pour le Sénégal am uti il dara te yàlla rek tax nekk nit ku diñ ku gëm boppam nekk nit ku dëggu man xam ko bu a baax a mais Sénégal rek lañ ben ak ben ben M23 je me rappelle plus son nom là mais ngeen ngeen Il ne a rek mais gars ana il yi fan ngeen man li man man xam man sama cadre moma sonal parce que man dama waxone depuis bima nek bima bi ma senegal Sénégal man dafa ben cadre ben village bu nek Casamance bo xamanteni dama jot a wax ak ñoom muy Bandial man ni su ma jugee fii su ma jugee foofu euh, Tunisie damay daw dem foofu fala laa ñew bima ñewé bima bima ñewé bima ne cëpp Sénégal rek dama dama yew rek tak jóg maa ngi Casamance nii te am ay village yu mu war wan Sénégalais nan la état du Sénégal ñak liggéeyee ay village yo xam amuñu ndox amuñu courant amuñu dara ay village yo xam ay série problème lañu am pour pour ñu ay yi ñi di non mais des fois des fois <coughs> comprendre ça pardon ngeen parler ma quoi sec quoi vraiment ngeen bal ma quoi mais ça fait vraiment mal au cœur quoi parce que man ñun dañu bëgg askanu Sénégal bi ñuy waxal sénégalais yi wax yi ñuy waxal xam ne ñoom ñun ñoom la waxal ñun li ñuy

man dama xamul sax projet de loi naka lañ ko mën a voté samedi quoi non Macky Sall c'est un vrai lâche quoi non nit ku bon du bon ba weesu Macky Sall non musuma gis président bu mel nii ci aduna lii Séné Sénégal lan lañ def yàlla ba war a am président bu mel ni Macky Sall lan. non mais c'est grave quoi mais man ma man dama may sérieux problème sama bopp bi instant dama may sérieux problème mënuma comprendre quoi te Guy Marius Sagna moo ciy dund lu metteem te pourtant am na jabar am na doom am na kër comme yéen am liggéeyam am salaire am am ay programme am liggéeyam am yëpp di xex pour Sénégal ñu koy jàpp mu nek ci di sonu di daw pour intérêt Sénégal kessé chaque jour mi ngi ci terrain bi di xex ken secondé wu top top topp ci rajo yi rek di wax rek dem ci ay conférence de presse ak mbépp mbépp wax ju bari rek top radio yi rek di wax rek ngeen foog ne moy régler problème du Sénégal ngeen foog ne toog mo régler problème Sénégal Macky Sall c'est un imbécile imbécile feebaru xel la saagawu ma ko de imbécile mo ñooñu nga xam ne dañuy mag mais seen xel du mag. ñun loolu lañ jox Sénégal kooku lañ jox Sénégal un quelqu'un qui a des problèmes de tête

Je suis désolé, quoi. Je suis vraiment désolé, quoi. une quoi. Tu dis, on le mouchoir, frère, si c'est stable. Moi, c'est quoi. Je m'excuse, Yann Balmo. Hein. moi moi, je quoi. Nous, nous wuñu Macky Sall ñun police nous ragal ça nekkuñu Italie nekkuñu France nekkuñu Canada nekkuñu fenn ñu ngi Sénégal Macky Sall c'est un imbécile il mérite pas c'est un fils indigne de ce pays man maa ko wax man Abdou Karim Gueye maa ko wax qu'il aille se faire foutre ngeen baal ma nag quoi su ma koy wax nag du yéen ñi seetaan moo tax ma koy wax mais la population sénégalaise aussi elle lâche la jeunesse sénégalaise elle lâche parce que waru leen seetaan Macky Sall mu jàpp réew mi di ko fayoo comme pas possible nii c'est pas normal lan la mais yéen lan lan ngeen ñu ragal nii c'est quoi le problème waxumako pour manque de respect à qui que ce soit je vous manque pas de respect man manque wu respect ñiy seetaan mais dama wax ni Macky Sall limi def ëpp na sama gars mais lu ëpp tuuru quoi tamit nañ waxante deug lu ëpp tuuru quoi li nga wara wax jot na quoi jug dafa jot seetaan bi doy na quoi mais dafa dafa dafa mais lan la quoi c'est quoi le problème c'est quoi le problème c'est quoi le problème avec les Sénégalais c'est où est la jeunesse sénégalaise où sont les enseignants ana ñu ana ana mais ana ana ñi nga xam ni Macky Sall ñom la noot ñi Macky Sall noot nga xam yeen yeen yéen nga xam ne seen salaire yi chaque jour mu dagg ko respecté wuñ leen baykat yi ana jaaykatu ñi nga xam ne ñooy gérer gérer poulailler yi ñu yor wàllu kii ana ñu ana ñu ñuy gérer wàllu ginaar yi nga xam ne chaque jour ñëpp gi nañ léegi Auchan récupéré na lépp Macky Sall di créer ay loi di def lu ko neex dans un pays boo xamante ni Sénégal musul am fitna bu mel nii président bu bonee nii musul am personne n'ose le dire personne ay immigré ñooy nekk ba bitim réew pour dimbali leen di leen xeexal seen réew yéen pour ngeen faju pour ngeen lek lek ba pour ay kilomètres Dakar Sénégal ay kilomètres fi pour dem ci village pour wan ay nit di pour pour ñu am ndox ak courant où est l'état du Sénégal 8 milliards ay 50 milliards pour ay président ay président assemblée nationale mi assemblée nationale tout le monde ay député des kon ay golo réew mo xam dafa melni amul ay doomu adama ñepp di sétane ana ñi nangu ci ana ñu non Sénégal Sénégal da ngay waaru nañu mais on va le dire il faut le dire ah dama ko waxaat je répète dama ni man Abdou Karim Gueye nekkuma Canada nekkuma États-Unis nekkuma ne xam fa laa nekk Sénégal Macky c'est un imbécile feebaru bopp laa am bopp bi dafa dafa dof dafa dof ngeen baal ma quoi dama xaw dama xaw dama quoi. ñi nga xam ñoo di pousser population sénégalaise pour ñu toog ñi nga xam des complices les marabouts sont des complices la justice sénégalaise est complice qui yëpp ay complices lañu ci li Macky Sall di def ñu bëgg encore 5 ans après mais nous ñun nag ñun ñun xanaa ñun ñun baaxuñu ñun ah xanaa ñun ñun suñu yaay ñun lu ay nit yu tekkiwul dara di sàcc àllu réew mi jàpp constitution bi di ko foowee ah tey ñëpp tey Ablaye Wade yee nañu ñun ñëpp ñëpp la Ablaye Wade yaay ñëpp ñun ñëpp nañu waxante dëgg te yàlla rek tax Ablaye Wade yee nañu ñun ñëpp ndax sarax bu bon lañ teg ci bopp réew mi sarax bu bon ba pare ñu ne kenn du ko wax quoi ku jug di wax sénégalais yi di la seetaan mais sénégalais yi man xamul leen dal quoi xamul leen dal c'est quoi le problème te bu dee débat télé ñu sol seen costume yi nekk di laak ay français yi di sonal nekk ci télé yi di wër télé yi di tànqal ñi sonal nit ñi bu dee wax ngeen bu dee conférence de presse kenn du leen jiitu ci kanam bu dee taxaw pour xeexal seen dëkk lo xam dafa jar wàcc mbéd bi ngeen daw seen biir ruq tok ku leen tok dina sa ataaya mais li c'est lâche quoi li dafa ñaaw dafa ñaaw man sama kàddu moo sonal parce que dama génn génn na Dakar ma ngi Casamance wara dem ci village yi ta xol gis ne liggéey bi état wara def ñun ak suñu maigre moyen ñun ñokoy def di taxale xaalis di dem di wan nit ñi naka la naka la ñuy dund village di dund ci àll bi lo xam état moo ko waroon def ah salaire enseignant yi baxul Sénégal da ngay febar war faju sax do faju ah Sénégal amoo loolu lek, mbay mi baxul. Hein? Ah. Éleveur yaa ngi jooy ñëpp ngi joy. Ñepp di joy. Sénégal courant du courant bu stable du ndox du dara Bo dépassé touti Sénégal lek, da ngay melni ku nekk fu kenn xamul Dakar boko ko dépassé tuuti rek da ngay melni ku nekk fu kenn xamul Hein? Ah. am du courant du ndox du dara nga tek président bo xamanteni, du tok sax ba réfléchir ci lu développer dëkk bi ci lu toll ni. il s'en fout réew mi ñepp tok croiser les bras c'est quoi le problème lan moy problème bi lan moo leen dal yéen lan mo len dal Sénégal lan mo len dal non non non Aïcha maman Aïcha lii faut metti man dama toog maa xool Guy Marius Sagna il était seul il était seul plus de 15 policiers wër ko mënuma si dara parce que dama sori ça m'a fait très mal un homme bu digne intègre te suba ñu làbb seen làmb di ko jëw di yàq deram naan ay non dafa sénégalais yi dem toog seen boutique yi di jaay ak seen cantine yi ak yàq der ak jëw ak yàq deru jàmbur ak wax yu ñàkk fay dara ngeen fi nekkee bàyyi réew mi ndax dara ko bàyyi ci loxoñi ñi seen doom yi suñu màggee dinañ leen xép ndax li du li la fi Serigne Touba bàyyi woon lii la Alaaj Malick bàyyiwu fi lii quel Sénégal dafa dañu mus a am dignité lan moo taxoon Maba Diakhou doon xex. lu tax Buur Sine Coumba Ndoffène doon xeex Lat Joor lu taxoon mu doon xex. ah lan mo tax Serigne Touba dem def def 7 ans ci ci si bi lu tax alaaj Maj ñu tebal ko résidence euh, résidence surveillée mais c'est quoi le problème yéen kan ngeen donnu yéen kan kan ngeen donnu ah non Sénégal dafa bëri caaxaan fu bëri ay kat way. et je m'adresse à tout le monde nak ñepp lay waxal ñi nga xam c'est des jeunes toll seen dégg doole wara wax ñi nga xam ne ñooy wu ñun li ñuy kaas man damay fonctionnaire d'état ñu lan lañ ci am luddul yak dar ak jël suñu suñu sutura diko ko ci télé ak radio yi di ñu guddé ak bëcëk ñuy ray suñu bop di xex ñu ñu door te buñu gëné police door ñu ñu ñëw ci askan wi ñuy xeexal askan wi yàq sunu der tas non di ñu yàq lu kenn xamul sénégalais ñoo wara a ibbi seen bop yi quoi dem leen ngeen soutenir Guy Marius Sagna dem leen police centrale dem leen fofu ne ku nekk gëm gëm leen seen bop xexal sa xexal sa dëkk ci gëm yalla la bok xexal sa dëkk ci gëm yalla la bok jaamu yalla li jaamu yalla la yéen da ngeen yaakaar ne jaamu yàlla bi li julli ci jaxay kessela da ngeen ngi nax sen bop jaamu yalla bi romb na loolu yéen ngi seetaan rew mi nekul ci lenn luy dembali rew mi du ci walu christianisme du ci walu islam du ci walu education du ci walu civisme du ci walu dara Sénégal demal Dakar comme Mbalik salte xasawu xunn amu ben organisation kër politien rek mo fa nice ak ah, xana ñuy joge bitim réew liggéey sen xaalisu bopp baadoolo yaa ngi bëgg a assainissement bu baax sax amu fa waxatuma la ak région yi ak village yi nan lañuy def imaginez vous rombal ak dugg yëmbal nga xool mais dans ce on s'en man man man population sénégalaise bi seen yoon nekkul ci Sénégal nu mu mel ak nu mu demee ak naka lañ koy dundee ak loolu parce que lan ngeen di ragal mais lan ngeen di ragal lan da ngeen yaakaar yéen a ngi si jàmm ni ku ci sa tey di am sa dina jéex tàkk boo demee hôpital du faju ku ci sa yaay feebaroon yàlla tere yàlla boo demee hôpital boo sa loxo lay dee ku ci sa doom feebar boo demee hôpital sa doom lay dee ku sa doom di jàng enseignant bi dina grève dina grève bàyyi xale bi jàngam yàqu boobu dom Macky Sall la ministre yu lachi député de bordel yu boni yeb yëpp ngi tukki di yóbbu seen kaw ñu jox leen suñu passeport diplomatique jox leen ay carburant jël ay 1 million diko may ay député par député 1 million député par député xolé village bi ma jëm nii eau potable amu fa eau potable après ngeen croiser les bras quoi comme si de rien n'était mais li c'est lâchewaay moo mo ma waxaat ko je répète mako wax man mako wax mako wax na libérer Guy Sagna qu'il aille se faire foutre on le respecte pas parce qu'il n'est pas légitime il a volé les élections plus d'un million d'électeurs la sen, sen, sen carte électeur jim ok euh, may mouchoir s'il te plaît waxuma dara sax waxuma dara sax mais ñi nga xam ni nañu ànd ak Jumari Sagna ah nekk ci combat bi nekk ci mu waa FRAPP mouvement yi wax yëpp dañu wàcc ci mbedd bi dem buntu central tëdd ci buntu central bi dem leen ñu jàpp leen ñu dëkk caaro yi nañ dem polisu caaro yi ñu jàpp leen ñu dëkk yaraax dem gendarmerie yaraax ñu jàpp leen def leen loolu na ñëpp dem ba ñoom ñu am leen doy cellules yi fees na mag ñi maire ñiy jaay caaf ñëpp jug parce a Macky Sall yëhoot la nit ku bon la ñu ne ay ba pare dans quel pays nous sommes dans quel pays nous sommes les marabouts sont des milliardaires ah les politiciens sont des milliardaires ñan ñooy sonn policiers yi ñoo sonn gendarmerie ñoo sonn te ñoom ñoo ñuy dóor ñan ñoo sonn enseignants yi ñoo sonn te ñoom ñooy jàngal suñuy doom ñan ñoo sonn hôpitaux yi ñoo sonn te ñoom ñoo ñu war a faj ñan ñoo sonn ñun ñi ñuy xeexal ñoom ñooy dal suñu kaw. Est-ce ngay nous mais ça mais réfléchissez quoi mais nous dellu si quoi nous n'y pour rien pour nous, pour nous, ñëpp la pour tout un peuple pour l'avenir mais mais Macky day day non day non Madame dama Macky Macky Non, non non Macky dafa day day Sénégal quoi def lu nek bour quoi kenn du wax kenn du buum kenn du buum bi ba mu jugee ci bopp réew mi Macky Sall dafa ni mom day éliminer premier ministre quoi pour pouvoir am gëna a bëri parce que mom mo gérer judiciaire gérer législatif assemblée nationale ay golo rek ñoo fa nekk ñi fa nekk ay ñu melni Sonko ay benn ñaar lañu ay ñi fa ne ñëpp ay golo lañ ñëpp ay golo lañ ñëpp ay député golo yo xamanteni pour ñom assemblée nationale c'est pas pour le peuple c'est pour le président de la république justice bi tamit nga dem fekk fa ay ñoo xamanteni comme pas possible ay nit yo xamni ils sont pas dignes quoi mënuñu sax ne serait-ce que pour lan pour honorer seen ligue quoi honorer seen ligue journalisme bi tamit genn wal presse bi yëpp même chose médias yi ëpp doole tamit ñu subventionné len ñu xey di xaaral Macky Sall soo ba jot mais dans quel pays nous sommes sëriñ yi tag Macky Sall ñi xamul croiser les bras tëdd seen i milliards ba do lay di dé non non non Allah bonni Macky Sall mais olof dafa ni mak man mom man suma ñibisé inshallah rabbi suñu bayal Guy Marius man mom ma leen fekk fofu ñu bayako ko dinañ ko bàyyi par force parce que Guy Marius mo moo leen gën mo gën Macky Sall mo gën gouvernement bi yëpp mo leen gëna diñ mo leen gëna gëm Sénégal mo leen gëna a xamna ko bu baax mo leen gëna diñ ci bopam mo leen gëna xam bopam ku bëgg réewam la ku gëm réewam la man xamna naa Guy Marius bu baax di ngeen ko bàyyi nag par force Guy Marius du doomu Sénégal bu ñu naxasal ñun man de ko sétane ñun duñ ko seet bu ngeen yaakaar dañ koy seetaan yéen toog leen seen kër yi gérer seen boutique yi jaay seen tubéy di wër di fenaka taxawaal di wax ñun bàyyi kenn yàq Sénégal Macky Sall même bu dee ñetti nit ñooy taxaw opposé ko ñun nañ taxaw opposé ko ne ko li ngay def du dëgg va te faire un nañ ko ko wax ñun même bu dee ñetti nit ñoo koy wax ñun lay nekk lu muy def bu dee ñetti nit lay jàpp ñun lay doon ñun ñooy taxaw ko yéen ñëpp toog leen seen kër yi ngeen naan seen ataaya mais ñun nañ def lu ñu mën l'histoire retiendra bi xeex jotee wax jot ñun jug nañ a suñu dëkk luñ ci góobee gar ko luñ ci góobee gar ko parce que gor moomul yenn yi bu dee da ngeen ni Sénégal réewu jàmm la da ngeen ni nax seen bopp nit dugg seen kër di voyale seen jabar ngeen ni jàmm ngeen bëgg jël seen doom yóbbu nangu seen kër nangu seen lépp ngeen naan jàmm ngeen bëgg bu yàggee du affaire u jàmm affaire u la c'est vraiment désolé quoi maa ngi nii Casamance metti ma trop affaire metti war ma fekk fa dama nekk xam nga rek gor ca wax ja boo xasee wax sa kàddu village bi di ma xaar munu moon def lu dul ñëw parce que il fallait ma ñëw il fallait ma ñëw munu ma bañ a ñëw il faut ma ñëw parce que wax naa ko waa village ba pare dama dugg Sénégal rek ne cëpp sama tànk aéroport rek takk samay bagage rek jubal si Casamance pour gérer loolu quoi parce que loolu moom moo ma tax ma ñëw fii nii ci village bi nii pour xool village parce que xoolal des milliers de milliers de villages ay ay ay ay villages les des centaines de villages yoo xamante ni du ndox du courant du poste de santé ay jigéen dañuy wasi ñu leen teg ci ay charrette ay jigéen di ñu leen teg di leen ci ay taatu garabu mango ay jigéen ñoo ñu pestisé ci ay taatu garabu mango ay mère di bay bay bu metti amul benn dimbal bu leen état dimbali njaay mu metti dundu bu metti Sénégal dundu bu metti lañuy dundu dundu bu metté metté métti mais sénégalais mom ils sont fous quoi le sénégalais il n'est pas patriote sénégalais bëggul soufam dafa bëgg nek France nek États-Unis bëggul soufam dafa bëgg génn dëkk bi sénégalais bëggul kayitam passeport français le bëgg passeport américain sénégalais bëggul mbokam moko ko keneen la bëgg français la gëna dégg bëggul sax lakam sénégalais bëggul lakam français la gëna bëre dégg bëgg dégg anglais la gëna bëgg dégg sénégalais bëggul sénégalais bëggul daram sénégalais bëggul daram sénégalais yëpp ngi daw di dem c'est lâche sama gaay dëkk yi ngeen di dem noonu di fa toog di fa reyante ñu leen di dàqan ah, dëkk yooyu seen i mag ko defar magu réew yooyu ñoo ko defar ñoom daw ñu woon seen dëkk yi dañ faa toog defar ko xeex ko ba dëkk yi nekk demal Algérie demal ba ci Congo Brazzaville fi dem leen ngeen xool dëkk yi dañoo jug seen mag yi ay nit seen i jeunesse ñoo jug xeexal dëkk yi dëkk yi taxaw dañ ko xéxal quoi ba dëkk yi taxaw mais man je suis vraiment désolé quoi man je vraiment dafa da ngay wax sa ba do xam sax lan ngay wax ndax xol bu jeex ndax Macky Sall tapet bu bonne bi nga xamanteni musul def prison musul manifester han ah, xamul dara ba dara bo lo jeex tubaab bi dañoo xol ba xamni ki moy le candidat bi len arrangé ñoom ki moy mongol bi ki mongol baa ngi nii tubaab bi jël ko def ko président tubaab bi rayante ñoo ko def président te loolu mo tax ba Sénégal yeen ngeen tayal tok parce que média bi mo leen di manipuler pour ngeen tok naan Sénégal rewu jamm la ñi tok di wax Sénégal rewu jamm la yëpp ñoom dañoo penaar ñoom ñëpp ñi nga yéen rek yéenay am problème mu faju yenee am problème mu hôpital laa dem fekk fa benn mère buy dee cancer ñu war ko opérer ñu ne bi moo jeex hôpital bi amul ndox ban hôpital la Dantec biir Ndakaaru Dantec même pas 100 mètres de palais da ngeen foog da ngeen lii day jeex da ngeen foog ni lii day jeex nii ah da ngeen yaakaar ni Macky Sall li mu ci dëkk bi day jeex bu paree ci lii dana mat ci leneen bu pare ci lii dina demaat ci leneen dina dem ba dugg seen biir kër yi ba pare dëkk boo dem ay dëkk yi da ngay dem xoolal ndox Sénégal nabdoo bi soriwul ndox ñu ko ñu ñun ñu sax jënd ndox solaire panneau solaire yi bëri ci dëkk bi àdduna bi ñu ngi développé courant dafa yomb léegi nit ñi comme ni ñuy faye ndox la ñuy fayee courant ndox kenn jënd kenn jëndatul ndox ci àdduna bi Afrique ñëpp a ngi mais xoolal mais nga am boo xam moom mi ngi xool chaque fois rek nu France ñu ci France génnee quoi nan la ci France mën a génnee quoi boobu Aliou Sall est milliardaire boobu Marème Faye Sall mi ngi fooy alu boobu ay Cimbo ay Mansour Faye ay ñu xoolal ay ay et mu jàpp ay sàcc ay sàcc yoo xam ni dañ rapport OFNAC daf leen épinglé ay ñoom ay ñoom kii euh, le gars de Koudou là ah ay ñoom mais xoolal mu jàpp leen dem def ay ministre de l' enseignement supérieur xool ay sàcc yoo xam ni xool dañ leen épinglé ba mu leer quoi euh, dossier Nafi Nafi Ngom Nafi Ngom Keïta bi benn dérangé wul benn sénégalais quoi ah dérangé wul benn sénégalais dérangé wul kenn ay Mourou Diagne Fada Macky Sall di ko cër quoi di cër ay Mourou Diagne Fada réew mi nekk genre cëroo quoi yéen ngeen lâche rek toog croiser les bras su fekkee dafa yaakaar dañ koy bàyyi na Sénégal yëpp toog Sénégalais nañ wax lu leen neex wax leen lu leen neex c'est votre problème toog leen seen kër yi c'est votre problème Macky Sall duñ ko bàyyi te duñ ko may dara te dinañ ko taxaw même bu dee ñun ñett la ñuy nekk dinañu taxaw Macky dinañ taxaw bu baax a baax Guy Sall Sagna di ngeen ko bàyyi di ngeen ko bàyyi ñu continuer waat di combattre Macky Sall duñ ko may jàmm incha allah dañ mel ni xuuxaan ci tubéyam jooju noonu duñ ko may jàmm maa leen ko wax duñ ko may jam. te dama koy répéter encore mo waxat ko dama koy répéter diko waxat diko waxat nekuma Gambie nekuma Canada nekuma États-Unis nekuma France Abdou Karim Gueye laa tudd rappeur activiste mané ne Macky Sall c'est un mongol c'est un imbécile qui respecte pas son peuple c'est un fils indigne de ce pays mako wax et je le répète mi ngi construction constitution Sénégal di changer histoire au Sénégal Lo xam nous musul dañ histoire au Sénégal la Macky Sall nekk di lal Diko magné diko di ko jéem affaire mané mané

te la koy def te problème moy xam nga man sooy def ben affaire nga koy réussir ngay def diko réussir sa boko defé réussir ko do bàyyi mak sa limi def da koy réussir parce que su tegee ben affaire day dox ndank nak après mu réussir ko su tegaatee lenen mu doxaat ndank nak après mu réussir ko bu tegaatee lenen après mu dox mais on va l'arrêter il va s'arrêter parce que teki wul dara du nitu dara te lol deug la te Abdoulaye Wade li mu waxoon la mak sa dëmm la parce que yenn yi dëmm rek moko man sa dëkk ay kilomètres amuñu ndox amuñu faju jigéen ñi dañuy wasin ñeen teg ci ay charrette amuñu courant amuñu eau potable di naan ay ndoxu taw nga am budget caisse noire ay 50 milliards ay 8 milliards par mois yu kenn xamul yoy assemblée nationale nga wo ay député di jox ku nek 1 million lolou dëmm moko ko mën. sunu yaay yu ay mère yu mag ñu am cancer dem hôpital Dantec même pas loin de Palais boo yuuxoo ñu dégg la han ah, bo doxé waxu yegg Palais pa mère bi feebar ñu encore da nga am dañoo am problème gaz motax mënu ñu la opérer ba mère bi dé lolou dëmm moko ko mën loolu dëmm kon Macky Sall dëmm la. loolu dëmm moo ko mën ndax nit loo bon bon bon bon am na lu ndaw loo xam ne war ko mën a dese ci yow quoi muy sa diggante sa borom loolu c'est le minimum quoi mais du ñu jaaxal ndax nit taxaw na buntu palais taal boppam Macky Sall génnul sax jaale ay mbokkam gendarmerie taxaw nañ di ko escorter def tonneau daanu dee mu taxaw naa ne vous inquiétez pas c'était pas c'était pas le cortège du président wan na leen nag manque de respect ci anam bu nekk wan ñu ko ci anam yu ne ci anam yu ne sak na suñu électeur yak suñu fichier électoral sak suñu élection saaga ñu ci ni saaga nañu ne attaqué suñu diine bi ñakal fayda diine bi ñakal fayda respecté wul dara le gars ne respecte rien respecte respecte wul institution respecté wul constitution respecté wul corps respectez respecté wul police respecté wul gendarmerie respecté wul chapeur ken xamul Macky Sall ban genre Mongol ngeen tek ci bop pour mi sama Qui ki le fan la jógee ki fan la jógee ki fan

gendarmerie Macky Sall faale leen ku ci deewoon tey xoola du la faale say doom dañuy torox amu leen benn garantie te moom ay milliards la denk rënk ko doomam ay Marème Faye Sall ak seen i jabar ak mi yow ay min ay nga jox ko un million billaahi wallaahi taala gendarmerie ñoo mérité lool police ñoo ko gën a mérité lool ay xoola ay jour ay ndooy baan ay ndooy baan ay ay ay ay ay nit yoo xam ne xoola ay dañu toog ci ay rajo yi di xalamal président bi fi ñuy toog police yi jàng policier yi fa toog xaalis bi ñuy am oto bi ñuy daw policier yi grade ko am police yi nga xam dañ yor ay sen ki di amuñu ko parce que ñom dañ non mais non non après légui yow man ma ñew di kaas nga may door dima xoño ñal quoi dima dima troxal te yow lay kaasal yow pour nga pour nga nek waaye li ku ci tangul sax do nit barki serina Mohamed li ku mu wul mais do nit li ku mu wul do nit do nit djuma saa ñamul di ngeen ko bay ci ni war ngeen bay ko ci ne waaw Diomaye Sagna di ngeen ko bàyyi ci nii wala ngeen bàyyi ko ci ne loolu moom maa ko wax di ngeen ko bàyyi ci nii wala ngeen bàyyi ko ci ne parce que ñun du ñorul bàyyi Sénégal nekk fi bëgg nekk ci loxo kenn nit koo xamante ne nii moom yoonam nekk si quoi lijjantiwul daray Sénégal amul ku wër entourage bu président bi te penaaro amul ku nekk ci parti bi te nekkoo à l'aise amul ku nekk ci parti APR xam ma te nekkoo à l'aise te chaque jour c'est la routine quoi chaque jour Ah, après, après après la construction constitution ba doyal dem a dit ñu la constitution bi tollal ñu xex ko ba sonu après mais lool pour ba kan lay kan lay Sénégal Le Sénégal chaque fois dañuy tok di sétane non Macky dafa yapp ñu je suis vraiment désolé quoi ma ko ma ngi djegulu ci tang bi sama xol dama image ak Sanya. Sagna kenn ko gisuma benn frère sénégalais un patriote bu fa nek gisuma kenn ku taxaw foofu ben mouvement bu taxaw jappalé mon frère Guy Marius Sagna ça m'a fait mal ça m'a fait très ça m'a fait très très mal loolu la xol sama xol jeex tak tak, mu metti ma trop ma gis ñukoy door diko deug te ñi muy xex pour ñooñ diko deug diko door la ñi koy ñooñ ñi leen sant lool ñi ngi à l'aise constitution bi muy changer ni, pour tok fi éternellement la rek pour di changer ay gouvernement bo xam lu ko neex lay def un frère comme Guy Marius Sagna ñu japp ko diko def loolu te Guy Marius Sagna amul ko gën deug Sénégal gisuma ko gisuma ko gën nek patriote ok man li ma bëgg wax rek déjà mooy damay maa ngi jégalu quoi si si si guddal bi la bi gudd xeyna peut-être waxna ak xol mais benen instant xol moy jeex quoi parce que ba léegi ni problème yi am yëpp ñun ñoo dund ken dund ko ba léegi li nek ni yëpp ñun ñoo dund ken dund ko ñu dund moy sénégalais yi nga xam ñom ñoo wara genn and ak ñun xex te defuñ ko assemblée nationale melni dara xew fa te loi bi ñi changer lu garaaw la lu garaaw ak garaaw la ay politique machiavel bu bon la Macky Sall am ay conseil yo xam dañ ko koy conseillé pour mu gën installer di gën wax def faax ci pouvoir bi

di leen baalu ak ci dëgër bi wax dëgër na métti na trop mais affaire ni mu demee affaire yi moo métti sama xol rek dama sori moo tax loolu fekk mu foofu mais incha allah rabi dinañu retourné te Guy Marius Sagna dañ leen wax état du Sénégal nañ ko bàyyi tey policier nañ ko bàyyi tey tey tey mise de l'intérieur na ngeen bàyyi Guy Marius Sagna tey tey tey bu mu fanaan foofu noonu bu mu fa fanaan may ko joxe conseil la jeunesse sénégalaise génn leen ngeen dem ci mbedd bi ngeen dem ci buntu police yi ngeen tëdd policiers yi duñ leen def dara gëm leen yàlla gëm leen yàlla gëm leen yàlla policiers yi duñ leen def dara léegi nag man dama doon joxe conseil pour wax xam nga di jégalu maa ngi jégalu quoi maa ngi jégalu ci live bi di jégalu ci wax bu dëgër bi di jégalu ci yenn àllu yëpp et tout mais dara dama am lu ma naqari rek am lu ma naqari pour Sénégal rek wax ji lu fi baax ngeen xam ne subhanahu wa taala la lu fi bon ngeen xam ne ci man la quoi mais li wér ba wóor moom mooy Macky Sall maa ko wax man c'est un imbécile du nitu dara nit ku bañ réewam la du nitu dara yan baal ma àqu quoi wax ji yëpp wasalaatu wasalaam ala rasulullah Karim Gueye la activiste Karim nitu dëgg